na la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 moom la ay kilifaam yëkkati doy loo ko teg ko ci loxoom mu def ci lu kawe njort te nu ànd koog moom sëriñ bi noo ngi lay siyaare bu baax ñu ñëwoon nag ànd ak sa xarit sa wëllëre sa taalibe sa lépp muy monsieur ministre des sports muy monsieur Makhtar Ba mi ngi nii toog ñëw tey siyaare si ci lu jiitu màggal gi waaye ñëw ànd ak yéen bis bi ngir nemmeeku leen siyaar leen te massaw leen ci coono yi bu ko defee bu delloo ndakaaru ñëwaat nag àndaat ak nun bis bi nga xam ni sëriñ bee ci joxe ndigal ne képp koo xam ni sama mbég sa mbég la bu dikkee nag ma sant la si yàlla kon nag Mbàkke mi ngi siyaare ñëw na jaar ci buntam muy sëriñ Sidi Mbàkke moom si Abdul Ahad te loolu lépp Mbàkke di sa di sa taxawaay di say jëf mu jóge fa dem ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa wax ni faw ma agsi nag ci Cheikh Mouhamadou Basir moom si Abdou Khadir ndax day sama sëriñ di sama xarit di sama lépp bi muy ñëw ànd naag Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Sidi moom si Abdou Lahat di sa sët bu baax bii di xaritam nga xam ni moo ko teeru dalal ko muy Serigne Atiex mii taxaw mu seen xalil mu ànd ak sëñ Abdou Akim mu sëñ Sidi Abdou Laat ak Ousmane Iyane Thiam mii di sa doom di sa lépp di doomi Alaaji Iyane Thiam ak maam Ngóor Jasaaka mii ak mboolem ñi mu àndal ànd ak doomi boppam ak njabootam ñëw siyaare si ci bis bi kon ñu lu te déglu monsieur le ministre. nag ma teg ci lu lu bari gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi. ñu ngi sant bu baax sëñ Muntaxa xalif général des murit di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wër eh, di la sant sëriñ bi di sant ñi ñu fekk yëpp ñii di suñuy sëriñ ñii di suñu mbokki taalibe di am mbëgte bu rëy rëy nag eh, jël suñu bët teg ko ci sa jëmm ji Euh, loolu um kenn umpalewu ko ñi ma xam xam nañu cofeel gi gi ñu am ci yow li ñu mën rek mooy ñaanal la yàlla yàlla sàmm la yàlla yokk leer gi te yokku xam-xam bi yàlla teel la boppam ba nga am jàmm defal ko mbooleem njobootu Sëriñ Tuubaa daanaka sax ab taalibe bu ñëw ziyaare si moom warta jël kàddu fekk sëñ Mamour ama bett rek jox ma kàddu waaye li ñu fi indi moo fi andi ñu fi ne yëpp ndombo tànk andi wuñu fi leneen andi wuñu fi li ñu fi andi mooy doon taalibe Serigne Touba ñuy dem ci bés boo xamante ne jàpp nañu ne war nañoo ñëw ziyaare leen tàllal leen suñuy loxo ñaan réew mi jàmm am fi ñaanal suñu bopp ñaanal waa Sénégal yëpp loolu mooy tànk yi wax ji nee naa du gudd parce que bés bii du bésu wax bésu ziyaare suñuy sëriñ la te sëriñ moom boo koy ziyaare da nga koy ziyaare tàllal ko ay loxo mu ñaanal la kon sëriñ bi feddali kóllëre feddali aussi suñu taalibe waaye it fësal ñëpp ne ñun am nañ cofeel ci yow parce que yàlla moo ko def te loolu yàgg na euh, ñi ñu àndal xam nañu ko kon sëriñ bi euh, mbégte boobu rek lañu ñu fësal ci kanamu mbokki taalibe yi ak suñu sëriñ yi fi nekk di sant yàlla bu baax a baax ci bés bi ñu may ñu gis ñi ñu fi lim yëpp te ñu nekk ay kilifa bés bi mu ñu may ñu nekk yendu ngir Tuuba gi dañ ciy sant yàlla asalaamaaleykum wa wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. mi ngi delloo ak nuyoo ministre Makhtar Ba ak mbooleem délégation bi mu àndal yépp di ko nuyu bu baax te di ko sant di ko gërëm ci lii muy wax te ma xam ni dëgg la ci moom ndax yàlla def ni nee na ndax yàlla def na ci ñi mu njëkk a xam ci yoon wi ci laa bokk yàlla def ak cofeel sama digga moom mu am ci man ak cofeel ba ñëpp xam ko nee na nag yàlla na ko yàlla yërëm Cheikh Mbacke Sakho moom la fa daa àndal lu bari nee na loolu yàgg na nee na mu may nettali cosaanam ci yoon wi ak fi mu jaar ba agsi ak fi mu jaar ba agsi ba jébbul woon ci Cheikh Abdoul Ahad nee na te loolu yàgg na nee na nag boobu ba tey yeesalu toon ak njébbalam yàlla def na sax nee na booba ci man ñii la bëggoon a jébbalu nee na ndaxte man la njëkk a xam ak cofeel gi waaye man nag sama jëmi bopp maa ko xamal ni ko nagam Cheikh Abdoul Ahad moo doonoon na sa sëriñ kon na kon nag yeesalal ci sëriñ Sidi mu sëñ Abdoul Ahad nee na loolu yàgg na xëy na léegi mu jege fukki at nee kon sama digg ak moom noonu la demee mu di ma ñaan ngan ca Fatick nee na fa yónni tam mu taxawu ko bu baax ngir ak cofeelam yàlla tuddagu ko nag waaye incha allah rabbi danañ ko mottali nee na lay sant bu baax a baax di la gërëm di feddali nag cofeel googi nga am ci moom di la xamal ni xam nañ ko bu baax te ñi la jege ñëpp te xam nañ ko nee na te ak cofeel moom kenn mënu koo fay yàlla rek ko mën a fay jërë ngeen jëf kon fu waay tool rek mën ngaa tàllal ñu ànd ak ministre Ba sëriñ bi ñaan bu ko defee yeneen délégation yi mën a jege si.